حمدا لمن يفعل كل ما أراد بقوله كن فيكون في المراد 17 heures pile di juróom waxtu ci ngoon jot na auditeurs yu Mouhalim Info ñu yeggaleen lenn ci ay xabaar ñeel diggante Israël ak Hamas tey jii di altine fukki fan ak ñaar ci weeru février dëppook benn fan ci weeru Chaabaan di baraxlu xabaar yi nag dañ koy tàmbalee ci liñ doon wax fan yëpp rek di leen ko junju geer bi nag mi ngi wéy di métti di tar bakkan yi di rot ñaari wàll yëpp rawatina ca bande de Gaza ba nga xam ne si euh, ñi ñoo di civil yi mbir mi tar na ki ñoom lool journaliste yi aussi kenn diwul ñu des ñu ngi leen wéy di leen faat waaye tam armée Israël tam ñu ngi wéy di leen faat faat bu jéggi dayoo communauté internationale bi tamit ñu ngi wéy di wax seen ay réaction dañuy tàmbalee ca port bu Rafah fi nga xam ne fan yi wax naa leen ni Israël fa la ñu teg seen ay gët Israël ñi nga tegoon seen gët ca noor ba fa lañ tàmbalee woon mooy opération terrestre bi jige fa dem ci sud bi te mooy xaan Yunus fi mu ne nii nag lañ bëgg mooy jige xaan Yunus dem ca poor bu Rafah wala boog barrage bu Rafah Rafah nag boo ko déggee barrage bu Rafah nag boo ko déggee mooy frontière diggante bande de Gaza ak Égypte kon mën nañoo wax rek frontière diggante Égypte ak Palestine foofee ndimbal yi dugal fa lañ koy jaarale maanaam daal mooy moo dox seen diggante ñaari wàll yi ba sax Israël sax ñoom mas nañ di de foofu yi ba loraale ca ay soldats yi réewum Égypte ndax ña nga fa fan yi fa la Israël bëgg a attaqué doon sax tey jii def na fa attaque bu doy waar lu mu sukkandikoo ci alges yi bay bakkan yi bay rot waaye la ñuy bëgg a conséquence ci laa bëgg taxaw d' abord ndax waxoon naa leen ni Égypte day ñoom nee ñu d' accord ci mbir mi ndax seen sécurité mooy menacé wu ci loolu bu amee ba tax nee ñu dàquñu dakkal accord de paix doxoon seen diggante ak Israël boo Israël dëgëree bopp na day def li mu def waxoon naa itam ne Amérique d'accorduñu ba sax waa Hamas génn di wax ne naam loolu ñu def d'accord nañ ci rafetlu nañ ko mooy position waa États-Unis ci mbir mi waaye du teree nag seen loxo mënta set ci li Israël di def waxoon naa itam ne ministre de la défense bu réewum Israël di Yoav Gallant mbir mooy bokk ci gis-gis ak Benjamin Netanyahu opération bi officiellement tàmbaleeguñu ko waaye nee ñu na ay semaine ba ko Israël di waajal ak léegi ba tax na sax Benyamin Netanyahu daal ne mobiliser mbooleem ñi nga xam ne ñoo di ay euh, réservistes yi mu dese woon ngir ñu attaqué foofu yi foofee itam fa la Israël waxee loo xam ne tey jii ba arme bi tam ba guerre bi tàmbalee léegi mosul am mooy fexe ba nangu ñaari prisonnier ci loxoy waa Hamas en tout cas ñoom waa Israël nañu libéré nañu deux otages tey jii fee ca Rafa yoo xam ne waa Hamas ñoo leen téye woon foofee ca Rafa nag auditeurs yi Mouhalim Info xabaarum sukkandikoo ci Al Jazeera daal nañ fay amale bombardement ñoom waa Israël ay raid dañ fa amal lu toll ci soixante treize personnes faatu nañ fa juróom-ñaar fukk ak ñett yoo xam ne faataat nañu leen foofee ca euh, euh, bande de Gaza ca port bu Rafah Israël moo ko defati auditeurs yi Mouhalim info ba tey Israël ñëwate fi mu defale ci bande de Gaza bokk na ci di jël seen alal ndax kër see xabaar gii ñuy wax maarif wala bokk ñu ne maarif mas na ko tuddeen waaye tubaab bi moom ñaara maarif la ñuy wax maarif tuuti xabaar la goo xam ne déet maarif waaw maarif moom day lu mu wax mooy euh, aljaysul israeli maanaam euh, arme bu israël bu toll ci deux cent millions deux cent millions euh, de billets de banque maanaam deux cent ci xaalis naa wax lool rek deux cent millions de cycle mooy xaalisu Palestine xaalis bu toll na lu toog deux cent millions Israël na ko ci banque bu Palestine ba nekk foofee ci benn banque bu nekk ci bande Israël dafay récupérer dool ci deux cent millions cycle mooy seen xaalis bokk ci ñaawteef yi bokk na ki ñaawteef Israël dafay ca bande Gaza ba tey mooy taskati xabaar yi muy faat jàpp leen jamono ji cent vingt six taskati xabaar faat na leen foofu cent vingt six journaliste téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn bi guerre bi tàmbaleeg léegi Israël faat na leen foofee ci ay taskati xabaar foofee ca bande de Gaza di lu jégg dayoo loolu yi itam média gouvernementaux à Gaza ñoo ko daal di ah xamle kër sax Baye nekk ca bande de Gaza rek ñoo ko daal di xamle ci gàttal waaye itam ñoom waa Israël de mbir mi yombul ci ñoom ndax waa Hamas xamle nañ fu ñu leen ciblé ci barab ciblé leen ñoo xam ne ñoom daal dañoo taxawoon bari bari fa ñu ciblé euh, daal lu mel euh, benn kii bu ñu yoroon làqatu woon fa waaye faat nañ ko ñoom lu bari gaañ ci ñoom lu bari la ñu faat sax waa Hamas wax nañ ko Hamas nee ñu faat nañu. tey jii fukki soldat yu réewum Israël ca fële ca Khan Yunus ca euh, est bu Khan Yunus mooy penk bu Khan Yunus foofee lañ leen def lañ leen euh, faate ci barab bu ñuy wax point zéro point zéro foofee kon fa la euh, xam la waa brigade xasaam kon faate waate tey jii dix ci ay soldats yu donte nag ñoom Israël moom ñaar la xam ne tey ne ñaari soldats ki ñoom faatu nañu waaye xam Hamas day nee ñu mukk ëpp na ko fukk lañu am ña ay gaañu gaañu te dañ leen a ñu gurboo woon ci ab barab ñu faat leen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 بقوله